maa lay nuyu. maa ngi fay Akram. waaw am di nga ngeen ngeen joué match bu metti match bu difficile est-ce que xaaroon nga match bu mel nii. non non non non xaaruma ko woon mais xam naa ne tamit compétition yi nekk nii match yu bari tamit nii lay mel. Mhm. waaw match yi boo ko bëggee gagné moom foog nga xeex ko. foog ñu xeex ko physiquement tamit mentalement tamit foog ñu pare parce que équipe bi nga dajal doo leen xam doo xam tamit euh, lan la ñu indi doo xam tamit ban façon jeu la ñuy jeu. est-ce que gis ñoom ñu def dañu def round d'observation bàyyi asek ak ballon bi. ASEC joué exploité ci malheureusement mu rek après ñom ñu gis façon bi di jouer ñu ñu dans le jeu ba match bi mujjé am tournure un match bu metté metté metti légui ñun but bi dafa am tout relâchement buñ def. Hmm. parce que dañ le ni affaire bi nous comme na rek ñom nous lecture bobu lañ am ñu foncé ñu ñu ñun côté ñu bloqué côté yi ñoom boo xoolee occasion yi ñu am yëpp ay bal arrêté la parce que tamit li ñu def ci ay faute dafa bari trop trop. dafa bari te arbitre bi da doon bàyyi rek muy def. waaw day bàyyi mu dem ñoom bu amee faute mu tiiral leen ñun bu amee faute du ñu tiiral parce que boo xoolee ci biir match bi am nañ ci penalty boo xam ne arbitre bi mënoon na ko siffler ah, mais mais comme tamit ñoom ñooy le maître du terrain mënuñu si dara lu dul lu ñu tiiral rek ñu ànd waaw loolu tamit des na te moonte liggéey nañ ci ba sonn nag liggéey nañ ci ba sonn boo xoolee day am ay combinaison day am ay centre ak lépp mais foofu dernier geste bi mooy des benn instant bi tamit dañ dem ba benn instant jour ku ci nekk da nga bëgg dugal loolu tamit dañ koy comprendre parce que compétition bi moo ko laaj jour yëpp ku ci nekk bi nga ñëwee da nga bëgg a wane sa bopp da nga a wan lan moo tax ma ñëw asec mais loolu lépp bu ñu demee waxtaan naat ku nekk dinañ la wax

ñu ñëwaat dimanche ñu jéem a amaat victoire. état terrain bi tam métti na mais il faut que gars yi dem jéem a si loolu parce que fii la ñu war li xew tey jàngat la xam nañ équipe bi boo ko mënee gagné goo ko tant que match bi jeexul parce que ñun dañu jàpp ne bi ñu leen dugalee rek waroon nañ leen dugalaat yeneen but mm. léegi nag ñu bàyyee ko bu ñu bàyyee ko équipe bi ah, attaqué ñu. am demi occasion dóor ko mu dugg. lan ngay wax supporter lay Sénégal à travers Galaxy TV. wa li len wax moy tournoi la ñëw jouer tournoi bi bo amé 3 points mo gën mais bo amé 1 point tamit da ngay and ak mom nga ñibi nga préparé wat nga ñëwaat dimanche. mais gëm naa ne équipe bi niñ ko wax ni ko wax entamé ni ak am nañ joueurs yoo xam ne wuñu parce que am nañu yenn joueurs yoo xam tamit dañu blessé bi ñu ñew fi ñu ngi leen di faj xëy na dimanche wala mardi dinañ leen dinañ leen récupérer dinañ ñu apporter satisfaction daal incha allah. merci beaucoup coach maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziare. waaw coach ma bàyyi la nga présenté wu. waaw Babou Dramé la ñu waxee Babou Dramé capitaine nekkoon ancien capitaine de ASC Jamono instant yii maa nekk coach ASC Jamono. mais mais mais coach nga indi fi équipe boo xam ne euh, am naa yaakaar ne même ASC Ndargu Ndaw am na mbetteel parce que xaarul woon euh, répondant bi am xaarul woon euh, rythme bi nga xam ne moom nga ko indil tey xaarul woon jeu bi nga xam ne aussi moom nga indi ci ay xale. ah ba loolu mooy la mooy secret bi. waaw lu may wax liggéey rek affaire moom football lu may wax booy chaque jour football dëkkul fenn parce que am na ñuy ñëw fi ñu ndargu ndaw mm, équipe Dakar parce que door na bu ñu waxee ma dem sama booy ma leen man gëwuma loolu parce que football bu nekk Espagne nekk Dakar nekk Angleterre moo nekk mbir rek position kese rek am fulla am jom xam occupation terrain soo yàgg football rek occupation 2 3 1 ma gis ma xam ne su sama côté gauche bi am na faay ñu fay jaar ma def benn 6 récupéré sama beneen 6 bi sama beneen 6 ma joué le coup vite avancé ko mu dem côté gauche bi xaw a ferme noonu soo xoolee bu ma fermé ko benn bal jox ko ma tëj couloir bi gisoo après centre amatut si lañ profité amatut 10 minutes 5 minutes si égalisé ñun mhm. parce que dama gis ne aussi même ASEC am nañ ay joueurs de qualité am nañ ay joueurs yi am expérience nag ñi joué nii am expérience trop ay joueurs de qualité lañ mais li nga def maanaam ba tere leen a joué loolu aussi da nga leen xam wala da am ñu leen xam mosuma leen di seetaan wala dëgg yàlla mosuma leen di seetaan sama benn booy daal ma seen si loolu xam nga si football soo ñëwee man d'habitude dama leen jouer 4 3 3 mais bu ñu waxoo yow moo ñëw liggéey si def 4 2 3 xam nga 4 2 3 soo seen da ngay fàtt day gêné loolu laa football la bu ma gisee loolu après ñoom xaw nañu gêné ñu dem dugal ma xam ne a ñoo ci mais soo gisee équipe bu am expérience la parce que mujj gi xam nañ ne physiquement physiquement ñun leen gën a taxaw soo xool seen course ay la mujj gi xam na jaxaw soo xool mujj gi ay attaquant lay la def ay njool lay dugal day bëgg centre dévié soo xool tëmbal la def léegi sama numéro 6 bi rastaman bi ma taxawloo ko mu nekk 5 défenseur 6 bu ma dugal ma ñëw mu taxaw jël place am ma ma amee ma demee euh, mhm. bi gis nañ ñaari équipe yooyu gis nañ ñaari équipe yi mujjee joué mhm. muy ASEC ak jamono am naa yaakaar ne ñooy favori poule bi waaw bu ma si ñàkkoon tey du baax waaw bu ma demee ba xam ne des na ay 10 minutes ma xoolaa mu desaat ay 5 minutes si laa wooyee si laa liyee sama gardien bi ne nii mhm. parce bien vrai que victoire lañ bëgg mais sans poul mel ni nga bi soo amee un point loolu da ngay yàlla après si la reculé loo booy ñu jéem a gérer ñu marqué ñu point di ñaan yàlla gannaaw suba dañu football suñu deuxième match yàlla may ngi ci victoire. numéro 10 bi foo ko jëlee kii ndaanaan la sama sama dama koy denc rek dama koy denc waaw dama koy affaire jaar dañ après nga jël ma hors dama bañ gars jël ko mooy borom bii bu bi waaw xale dara lay tax nga def ko dañ ko démissionnel fay ko parce que équipe bien vrai que dañu invité mais mën nañ la invité nga ñëw nga def surprise parce que ñu bëri dañu jàpp ne dañ lay invité rek da war a ñëw dem bokki non man xooluma loolu man son premier objectif mooy génn match de poule te wax naa ko booyee bala may xool leneen naa génn match de poule après nga joué match par match man loolu mooy sama objectif waaw di ñaan yàlla bu baax a baax a baax a baax rek góor jigéen mag ndaw xam amul biir ba ay sa jamono moo dem ñëpp dañoo boole tey ne mbir kilaan moo dem stade bi neex lenn lañuy jooy tuuti supporters yi ñëw nañ am confiance seen équipe dëkk bi buñ tuddoo seen équipe dëkk parce que ñoom ñoo a may doole ñoo ñu a jàppale ñoom ñëpp génn en masse dimanche ñëw yëngal fii parce que supporter da may day may équipe doole soo gisee bu booy dugalee bu supporter yëngal rek après deuxième mi-temps gis nga lu booy football waaw gis nga lu booy football kon ñaan képp koo xam ne ni yaa ngi Birkelane wala door de Birkelane nga ñëw dimanche nga jàppale booy incha allah yàlla may ñu victoire. mais sànq ci ci sa phase de non non contact am na mais penalty amul. soo gisee joueur bi da ko da ko mm. parce que bii bal bi ñëw. bien vrai sama joueur bi làq na ko sooy xool xaw a nii. équilibre ko waaw mais normal. mais am na tamit mag fi mu am na yoo xam ne pour nga tiiree ko tamit risque la. parce que nekku penalty boo xam ne dafa leer waaw nekku ci penalty boo xam ne tamit dafa flagrant pas dëkk bi sax mais nekku penalty mm. gis naa daal match boo xam ne max bu ala daw me football am na za am na ku ñëw tey si da nga xam ne am na fi waaw. lan wax ci ci chaîne bu bees bi di Galaxy TV. Sénégal Galaxy TV Sénégal di ko ñaana yàlla rek mu dem bay taxaw bay taxaw ay yeneen yeneen seeni seeni seen dem pourquoi pas yàlla dem may ko ba fu ñu dégg TFM Walf ñu dégg ko fa. parce que innovation rek moo am njëriñ doomu aadama soo nekkee si dëkk. wala nga nekk si réew da nga def dara bul xaar loolu dëkk bi defal yow yaay defal dëkk bi mais soo fi nekkee man dëkk bi daf defal doo dem. kon di leen ñaanal yàlla rek seen initiative bi ngeen jël ngeen dem ba xam ne nii mu mu romb xam ne foogoo ngeen ko te yàlla mën na te yàlla da koy def parce que ngi def liggéey bu rafet ok di nuyu ñëpp na di jox ñëpp rendez-vous dimanche kontaan ci bu baax baax